salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan ci Bambey TV euh, ñu ngi leen di nuyoo di leen jaajëfal euh, tey parlons politique dafa dellu siwaat ak toujours ak waa benn bokk yaakaar tey nag euh, on a le plaisir de de recevoir sur ce plateau Dame Ngom conseiller spécial bu bu conseiller spécial en politique de El Hadj biñ ko nuyoo pare dalal ko ci plateau bi hein. dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté wu aux, internautes qui nous suivent à travers le monde. Mhm. Dame, ñu lay la plateau. Euh, ñu di fay. Mhm. billahi minashaitan rajim. rahim. ñu ngi TV toute la population de Bambay, région Diourbel. Mhm. Euh, di yóbbu suñu euh, Fep, du Sénégal. Ah, di nuyu le PDG moom Mamadou Ndiaye. di nuyu kilifa diine nekk eh, ci Bambey yëpp vraiment di leen kontaane bu baax a baax a baax. Mm-hmm. Eh, eh, daam daa mel ba tey waa waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci politique bi ba tey ñu ngi ci ay contestation def recours coow li daal bëri na daam. ah c'est normal <laughs> c'est normal ndax politique moom ak coow ñoo ànd. Uh-huh.

waaw tourner la page da fay tar bo ngeen gisee mhm. situation bi démé ni. Mhm. man pour man yow. Mhm. li nga ma war laaj en tant que journaliste au niveau de Bambey. waratul doon question contestation bi. mais limu mu bëggoon dégg mooy. yéen nan ngeen def. ba monsieur El Hadj fexé fexe ba Gana le maire <laughs> actuel. sortant non pas Sokhna le maire actuel de Bambey. Uh-huh. naka la def ba ñu tax nekk di ko ak di ko uh-huh. ak le candidat de yewi Askan Wi. Uh-huh. man fof la len don xaar. wa mais question bobu dina ñew question yoyu dina ñew mais instant bi ni dañuy wax ci waxi contestation bi parce que wax dëgg fa yalla ñu bari loolu lañ moo leen jaaxal. xam contestation bi liko indi. moy euh, problème yi nga xam am na école kat. muy transfert d'électeurs yi. kaar yi ñëw di wàcc fii di dugg di génn mm-hmm. yooyu moo ko indi mm-hmm. ndax euh, ku ne xam na ni électeur Bambey yi mm-hmm. du ma wax sax électeuru Bambey mais man Bambey laa gën a maîtriser politique u Bambey suñu xoolee situation bi xam ne li wàcc école kat voté fa mosu fa am loolu transfert d'électeur la ak influence bi ñu doon influencer euh, maanaam population bi di diaboliser la situation politique di dugal ci politique bi ya nga xam ne nii bokkul loolu moo indi problème yi loolu rek moo ko retardé. waaye loolu tourné woon pa tourné woon nan page bi parce que soo gisee niñ ñu leen laminé au niveau du département xam ne commune wax waxatuñu loolu. problème yooyu nag dañ koy delloo justice. Mhm. moo tax xuusuma ci du ma ci dugg bu baax. Mhm. dañ koy boo delloo justice rek. Mhm. bàyyi leen ñu def seen liggéey une trancher après dinañu euh, justice Inch'Allah, allah dina et on saura qui est le nouveau maire de Bombay Inch'Allah. Euh, est-ce que de yéen xeebu leen xeebu très est-ce que du l'autre non. Euh, bëgg favoriser euh, seen seen maire au détriment du maire de Yewwi Askan Wi. boo leen boo naan ma mm-hmm. d'ailleurs Asanja, il n'est pas reconnu au niveau de Bombay mm-hmm. Bambey xamuñu kan mooy Assane Dia. Mhm. dama lay wax catégorie électeurs yi nga xam ne ñoo am Bambey. Mhm. pour wax la li indi situation bi ba ñuy dem ci yoon ak di ñëw di génn c'est pas une question de Assane Dia. Mhm. parce que Assane Dia nit ñi voté nañ xamuñu sax kan mooy Assane Dia dégguñu ko sax ba koy xam. seulement dafa am électeur boo xam ne day topp ci leader bi. muy militant wala sympathisant foo ko gisee gis ko. kooku électeur la. am électeur bi nga xam ni këram rek lay toog. téye radio mhm. wala téléphone am di suivre nga xam ne kooku selon les informations këy euh, yi mhm. ci lay jóg pour dem voté ji mhm. mu am électeur ya nga xam ne dañuy génn di gisal seen bopp xam lan moo gën ci dëkk bi kan moo gën ci dëkk bi jóg dem voté ji am nag ñi nga xam ne dañuy yuuxu rek mais carte sax duñ ko am yooyu yëpp dafay am mais boo gisee situation bi ñu ni ñu diaboliser campagne bi indi affaire ngóor jigéen di yàq di wër ci rajo yi di wax loolu moo indi cette situation actuelle loolu moo indi problème yi mais Assane Dia xamuñu kan mooy Assane Dia asan ja il n'est pas nit ñi dem nañ voté askan wi certes ba mu nekk di balancer ak le le candidat de Benno Yaakaar loolu dem nañ def ko mais xamuñu kan mooy Assane Dia ba Assane Dia ba sunu papa la sunu xarit la mais il n'est pas reconnu au niveau de Bambey Assane Dia politique gu topp leen mooy juddu bi mu politique

da ngeen koo dàqee Benno Bokk Yaakaar mu bëggoon fa nekk maire ngeen dàqee ko fa mu ñëw euh, poser candidature Yewwi Askan Wi. Euh, waaw loolu li ma ciy tontu. Mhm. da nga njëkk wax ne maîtriser naa situation politique bu Bambey. Mhm. loolu c'est sûr. Mhm. ñun bu ñu jógee di politique en tant que jeune. boobu ñu ngi ci CM yi di def ay cinquième quatrième donc loolu yàgg na. boobu sax yaakaar naa ni APR sax bu amee dafay soog a am. waxatuma laa Benno Bokk Yaakaar. donc xam nañu lan mooy politique Assane Dia li la wax rek sama bàyyi la bugguma sax di xuus ci lu bari mhm. daf don valse rek daf don valse xamul fan la jëm mhm. en toute sincérité xamul woon fan la jëm xamul nan lay def mhm. ñëw na APR mais APR euh, dafa constituer ay cadre ya nga xam ne nii rek wax ñu di la mënul ñëw na fa mm-hmm. certes jaar na fa. Mm-hmm. incarné na fa leadership am li mu moom lañ ko jox mu dellu. ci la dëppee nag dem ñu investir ko yooyu askan wi te juste avant yooyu askan wi bu buggaan la jëloon. benn euh, bokk. waaw bokk bokk gis-gis. gëm dem sa bopp mm-hmm. moom la jëloon. un certain un ami. moo ko fa yóbbu. mu jël récépissé bi. dernière minute lañ ko lañ ko jël et puis il n'est pas le candidat de Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi est constitué de jeunes. moom Aïda Mbodj moo ko jël am personne dugal ko mais nekkul candidat Yewwi Askan Wi yeeg Yewwi Askan Wi ay jeunes la yu mm-hmm. dajaloo. Mm-hmm. nekkoon ci ginnaaw Ousmane Sonko. Mm-hmm. am ñeneen ñu nekkoon feneen. ci Pape Diop ñooñu ñooy Yewwi Askan Wi. ñooñu li ñu bëggoon amuñu ko mais Aïda Mbodj dafa forcer jeunesse boobu ak ay nitam même Assane Dia. loolu moo ko indi mais Assane Dia du ko ñu xam. Euh, man damay sawar ci am am sama plateau ñu mel ni yéen parce que damay am ay information damay jàngee si yéen yoo xamante ni euh, bon doo ko gis à la surface foog nga dugg xuus si biir. doo ko doo xam nga lu waral loolu. Mm-hmm. ñun juguñu pour politique rek pour am am ci dara. Mm-hmm. comme ni ko gars yi gisee. man waxuma la leader par leader mais man Bambey personne par personne lay topp. d'accord ñi nga xam ne dañuy ñi ay acteurs de développement la ñi jóg pour politique. Mm-hmm. ku ci nekk damay jóg di sa doxin. lu ci mel ni par exemple Assane Badiane bi fi jaar bërki démb di wax ne c'est le porte-parole euh, di hmm. de de de Assane Dia bërki démb jóge naa Dakar man ak sama xarit bu ñu naan simu ko hmm. boobu mu ngi ci commité de santé bi hmm. bu Bambey nekk le yi ku ne xam na li ñu fa def man sax awma di aaru di yàq nit wala may wax ci nit lu ma xamul li ma ci xam bare na mu ngi sama téléphone lépp mu ngi man

dernière minute deux jours trois mu daw dem ci Assane Dia parce que ñun du ñu du ñu jug pour dem xool lu ñu def mais dañuy langaamu ci ay détails loolu nag Bambey day jeex loolu dootul amati loolu loolu lu mel nii loolu la am. loolu moom Bambey dañ ko fiy jëlee. en toute sincérité. Mm-hmm. parce que li amoon hôpital ba. dootul am feneen mairie sax waxuma ko parce que maire bi moom mënuñu koo jël insha allahu rabbi mairie bi Gana mbay daf leen a gañe waaw nañu xaar décision de justice vu que ne ngeen euh, da ngeen def recours ñu xaar décision de justice apparemment si ci commentaire yi tey waa benn Bokk Yaakaar ak ñoo fa nekk maa ngi leen nuyu de passage mais apparemment daam daal tu es euh, tu es applaudi partout <laughs> euh, hum, un jeune très engagé un frère exemplaire le Baye Fall de El en tout cas il y a <laughs> il, y a, il y a beaucoup de qualificatifs mais madame daam tey ñu wax ci El yaay son conseiller spécial en politique man sax man sax loolu daf maa jaaxal conseiller spécial bu xalé ni waaw c'est parce que ñun dañu ràmp ci politique politique dañ cee sonn. Mhm. am nuñ ci doxee té El leppam mhm. mbiru mbiru xalé la. Mhm. may dégg parfois. Euh, am yuñ koy waxal. mais El Hadj ku xam ni mu ramper en politique. Mm-hmm. waxuma la politique mais dans le cadre de l'administration, administration. Mm-hmm. fi ci El mm-hmm. de Petrosen. à nos jours muy doon ambassadeur nga xam ne président Macky Sall moo signé. décret def ko ambassadeur. El xam-xam bi mu am El c' est un jeune cadre. bëgg ànd ak jeune cadre yi pour liggéey dëkk bi. ci ay ay projet ay programme am El mom liko ñëk a jaaxal moy résultat bi mu au niveau du département ak la commune. mom mhm. lool moko ñëk yëm may waxaale de passage fay sante toute la population de Bambay. Mhm. particulièrement la jeunesse les femmes. Mhm. parce que même mom affaire bi il était bayyi daf ko jaaxal. nan la def ba am résultat bi mais lu mu fi liggéey la. wa parce que euh, on le rappelle elle a été directeur de campagne de la commune et du département ngeen gagné département bi ci score bu macha allah euh, boo xamante ni kenn lam-laamewu ko mais commune bi mu melni dafa am euh, même bu dee ñee ñoo gagné wala yena a gagné dafa am jiixi jaaxa. wa lolu liko indi. Mhm. département bi élage xam nga li wolof nan joté bala joté élage mhm. bu campagne amul dara amul ci la élage di wër di def li muy def. d'accord élage ku fi jaar. Mhm. am nga responsabilité politique. man musuma gis responsabilité politique bu élage ja am.

loo xam ne euh, war na mën a taxaw mhm. di def li muy def mhm. El dafa joteeg waa département bi soo dafa joteeg ñoom soo ko joteek ñoom mhm. mooy def ko liggéey bien avant El ci biir campagne bi lu mu dajul amul El Hadj euh, huit la daan yeewu ba quinze heures mu dem ci département bi seize heures une heure de temps du sax añ ndoxu périm lay naan seize heures ba zéro heure mi ngi dans la commune looloo tax mu am résultat boobu il était, il était le seul en Elage. Mm -hmm. euh, est-ce que, est que vous ne vous êtes pas plus concentré dans le département que dans la commune euh, mën nañ koo wax. Mm-hmm. ndax li tax ñu mënoon koo wax mooy. Mm-hmm. département bi. Mm-hmm. mooy nuyu de passage le président du conseil départemental di xaritu Elage Dia. di frère am di magam. président daf ko woo ba mu ñëw xamal ko ne moom la yaakaar ci département bi moom Elage Dia. moo tax mu ne comme am naa yeneen ñeneen ñi nga xam ne ku mel ni le maire aussi sonn na ci. Mm-hmm. ak Fat Seen ak ñooñu. Mm-hmm. comme ñu ngi ci commune bi peut-être mën na jël les soirs. Mm-hmm. di ko dugal dans la commune. mais le matin yi muy dem dans le département parce que département campagne ko moo gën a metti. waaw ah, parce que situation géographique département bi. ku ko xool xam ne li ci El ja daj. El Hadj ja fi ñu toll nii may wax ak yow sax tooy na tooy ba nga xam ne nii mais nag li mu bëggoon alhamdulilah am nañu ko. ndax écart bi am département Bambey yaakaar naa amul ci benn eh, département au niveau national. Mhm. donc loolu dañu ko koy sante di ko encourager di ko gërëm. Mhm. ndax mi ci ay programme mhm. El Hadj instant bi tourné tourné na page loolu. moom li muy lijjanti mooy xool naka lay def fi ñu toll nii ba ba ba teg yeneen programme au niveau de Bambey dimbale femmes yi ak jeunesse bi El Hadj mi ngi ci loolu daf daan defaan euh, un quartier un emploi. dem ba ci naan une rue un emploi une maison un emploi fala mm-hmm. actuellement kër gu nek mu bëgg fa ñun politique de développement lañ xam. Mm-hmm. ay xex, élage mm-hmm. kuy def qui sax euh, do fa certes ñu kenn duñu mais do fa bi mi ngi ci programme une maison un emploi. Té kuy wax ni développement romb emploi yaakar na ak lim def lim chiffre man mii di wax ak yow moo def un jeune cadre dans le trésor public mhm. ak ak ak ñu bare plus de 400 voire 500 personnes mhm. wutal leen liggéey les femmes dugal euh, jeunesse bi étudiants yi ñiy stage ñi ñuy def formation loolu la ñu xam ci développement mais xamuñu ay jaar fii di yàq yu waxoonte ay détails yooyu

nday marem bëgguma woon bëgguma woon ku ko tudd nday marem ah, mm. parce que parce que yéen a ngi tax ñu koy xam xam nga dafa am benn léeb buñ doon wax naan mhm. waa ji dafa toog yor alal ju bare bare bari topp daal ne ku gën a ndaw mhm. moom laa koy jox mhm. moom moom alal ji bukki waddee fële daal ne man démb laa judd ñu ne gaynde ñëw na maa ngi nii di soog a judd ki gën a doon xale. xam nga ku ne maa ngi nii soog a juddu lëg nag dafa ñëw ne topp leen ma juddu. <laughs> ñu jël lépp joxu lëg. nday mareem loolu moo ko dal nday mareem xamul luy politique nday mareem xamul bàmbay te euh, du ma topp maa ngi seetaan fan yi xam nga El Hadj ay ay jeunes am bëgguñu ko ko laal. Mhm. te gis naa ni ñuy commentaire sax xamuñu koy El Hadj mhm. mais seen sincérité ak seen dévouement ak gis liggéey bu El Hadj di liggéey ci dëkk bi. Mhm. moo tax ñuy wax ju bari. moo tooñ lu boppam ñu ngi koy naan ay caga li la El Hadj ja defal dinañ ko wax message yaa ngi fi. bi mhm. ngay ñëw këram naan ko dama bëgg nga génn la ci génn ma ci jàng bi la bi mhm. yooyu yëpp maa ngi gis booy yi di ko ko wax. Mhm. man du ko wax loolu. parce que sincèrement romb naa détail yooyu. Ndeye Marème bëgguma ko jox buzz wala aura boo xam ne tollu fa. Ndeye Marème elle n'est pas reconnue. Ndeye Marème xamuñu ko. àgg na ba ci nan El ja pourtant c'est la c'est la candidate Yewwi Askan Wi. euh je pense pas que Aïda Mbodj dina jël risque jël ko xamanteni ni xamuñu ko. waaw candidate Yewwi Askan Wi motax mu demee ni motax mu demee non candidate Yewwi Askan Wi ki nga jakar lol keur xamula nga ne enseignant nga lol la ak la sama dom sax fa la doon jàngee mais dootul dem semaine bi yëpp demul ba ma ko seetaanee conférence de presse ba fu mu war a wax la naan laa. lër la retiré sa ndànk sama doom parce que détails yooyu ñu nekkuñu ci maa ngi koy dégg mu ne El Hadj jàngul. parce que dëkkul Bambey xamul Bambey. El Hadj Dia de Petrosen à nos jours dama la koy wax. fi El Hadj jaar. ku jàngul nan la le président di nommé ak décret. un amba le plus jeune ambassadeur itinérant de l' Afrique. c' est El Hadj Dia actuellement. jàpp ji fi mu jaar un cadre dans le trésor public. loolu moom ku jàngul et puis ndax ku jàngul lu daan ngoom di toppee sa ginnaaw. Mm. jàng fi ñu war a jàngee jaar fi ñu war a jaar liggéey bëgg a contribuer ci développement suñu dëkk loolu mënul nekk ku jàngul nan la APR cadre APR yépp mën a toogee. Mm-hmm. def seen comité directeur man koo ñoom ñëpp ne yow lañ jiital comme comité de directeur de campagne dans le département. Mm-hmm. le lendemain ñu ñëwaat commune. tous les cadres la APR APR nag ku ko xam-xamee ko ay cadres en toute sincérité. Mm-hmm. ñooñu ñëpp man koo jiital El Hadj ñu ne El Hadj jàngul président Macky Sall ne ko yow laa yaakaar Bambey yow laa bëgg nga gañeel ma Bambey yow laa am Bambey El Hadj ja génn ak résultat bi waaw El Hadj da kon bu jàngoon xaw ma fan la jëm ak waa dëkk bi ak fi mu jaar yëpp. bon euh, démb amoon nañ fi invité ma ne il y a pas photo entre Ndeye Marème et et El parce que bokkuñu bokkuñu classe. bokkuñu background politique.

yow nga ñëw di nday mareem dama lay wax benn affaire nday mareem bi muy ñëw Bambey jour boobu toog ak ay dëmbooj naan ko man maay directrice école xale yi fële mm-hmm. wax na ko ñeenti yoon mi ngi taxaw ci kanam ay dëmbooj ay dëmbooj xamul mooy kan c'était en 2016 loolu xamul mooy kan kii taxaw mu naan ko man la doomu diw maire boobu yàlla na ko yàlla yërëm moo nekkoon maire bi nekkoon ci Aïda donc kooku buñ toogee tey ñu ne moom la yàlla yeewi askan wi jiital tey Bambey loolu c'est une loolu burdu sax laa koy tuddee du fóot moo tax mu demee nii mais nañu dimbale rek ngir yàlla dafa judd ci politique rek daal di toogi nañ na ci jàpp rek bañ a laxasu ci dara bañ a kenn parce que xas xas élage mhm. ja nga cokkaas ko day dafay def buzz mhm. moom juddu la ñu teg ko essayé nañ ko mhm. toogi na nañ ci jàpp rek bañ a dugg ci benn détail parce que xajuñu ci détail ñun kafewuñu élage ja bëgguñu ko ko tudd ndax li muy def ci biir dëkk bi ni muy taxawoo dëkk bi jigéenu dëkk bi

mais mais mais mais département bi kan moo fi nekk nañ ma baal parce que ñëpp nag ay jàmbaar lañ. Mm-hmm. même su ma waxul kan moo fi nekk c' est le directeur campagne c' kii du élargir. Mm-hmm. résultat bi moom la. ainsi que dans la commune ndax wax dëgg yàlla. donc moom mooy doon vis à waaw élage loolu moo doonoon loolu moo doonoon waru garam loolu moo doonoon waru garam te eh, Ndeye Marème loolu moo ko dugal ci la situation élage de mooy lakkalu. mboolem kuy politique bëgg a dundee bambay paa nga bëgg a dundal bambay soo bëggee dundal bambay da ngay lem say ndombo lem say lépp ñëw topp ci gel elage ja mhm. soo taxawee di sànni elage ja xeer mhm. wala nga bañ ko wala bëggoo ko rek c'est parce que yow da nga bëgg a bambay te dafa am lu xew léegi muy réseaux sociaux ngay gis xale boo xam ne bañ ko ne bañ na dem na liggéey Dakar pas bu mu kian weekend sax dafay am problème bugul mhm. bëggul liggéey bëggul dara 1000 francs lay wut tëdd ci néegam def connexion bambay daal mi ngi seetaan El Hadj El Hadj di ko déranger. Mhm. muy saaga rek benn nit ngay gis mu am sans compte Facebook. Mhm. nday mu ndaw Makhtar Diop di saaga ñun détails yooyu miis nañ ko romb nañu ko. Mhm. bambay est avec El Hadj yàlla mooy dogal. jeunesse su Bambey les femmes de Bambey la population de Bambey dañoo nekk ci ginnaaw El Hadj Dia bëgg El Hadj Dia seen bopp El Hadj Dia bëgg liggéey Bambey ànd ak El Hadj ñun ci siège boobu lañ nekk ñun chaque jour dañuy travailler de vingt heures à zéro heure voire une heure du matin ngir ay programme yi ñu indi Bambey ñun ci loolu la ñu nekk. ànd ceeg élargir. daan daa mel ni da ngeen a aiguiser seen seen i griffe xam nga nu ñu koy waxee ci olof da ngeen a aiguiser seen i griffe. ku laal ku laal élargir ku wax ko élargir ngeen xool ko. waaw mais li muy def Bambey soo dee nit su dul dara. elage de mo lay wutal xey nga doon ndaw mhm. mu exiger li nga wara defal sa parent li nga len wara assister mhm. def ko ba muy 400 voire 500 ci commune bu toll ni bambay mhm. ba kenn du ko wax dara hein ba kenn du ko wax kenn du ko wax dara et puis da koy def sans tambour ni trompette du bëgg sax ngay di diko wax man sama bop rek la lim motax bëgguma tuddu ñi ci def donc elage de ci détail yoyu la nek

ndax ñoom liñ doon campagne mhm. demuñu fenn mhm. campagne liñ doon campagne mooy toog ci rajo bi di xoox ngóor jigéen ku mel ni sam papa mënul génn def nii rajoom dégg ngóor jigéen xamul ni mu demee El sax mi ngi koy mi ngi koy leeral démb mhm. ne dañoo war a jël benn commission boo xam ne dañoo war a leeral ni Macky Sall waxul ci waxu ngóor jigéen dara te ku ko sori la ñoom ci loolu lañ laxas woon détails yi ci bari loolu moo ko indi la personne de Assane ja encore une fois Bambey xamu ko xam nga yomb na nga liggéey ba retraité rek ñëw ne damaa soxla dëkk wala nga dem voyager. commencé liggéey perte France wala Italie wala kii ñun demuñu fenn ñun suñu visa yi dafa suñu passeport yi dafa fees dell ak ay tampon yoo xam ne visa yi day expiré. demuñu fenn ñun Bambey lañu ñëw feneen rek ñëw laaj. réussir ñu feneen rek daal ne Bambey yomb naa politique wàcc ñëw El Hadj passeport diplomatique ba mu koy am c'était mille 2008. musuñoo dégg El Hadj tukki bàyyi Bambey. naam li ngay wax doy na waa de. lu leer laa lay wax suñoo gis Dame Ngom tukki Bambey tukki bàyyi Bambey chaque jour ñu ngi sur le terrain. Mhm. El Hadj chaque week-end mi ngi wàcc sur le terrain lu mu am bokk kooku waa Bambey. Mhm. léegi yow da ngay dajale quelques jeunes rek yoo xam ne ñii peut dañoo meree fee dañoo kii fële. Mhm. dem liggéey peut-être sa liggéey am na problème. nañ ci jàpp Bambey dafa am nu mu war a doxee war koo liggéey ñun ci loolu lañ toll. su dee xam-xam bi ñun dañ koo dajale teg. su fekkee ni temps bi ak bëgg bi lépp mu ngi ci ñun donc loolu ci la ñu nekk ñun ñun daal ci programme mu defar Bambey la ñu nekk. Mhm. page bi nag tourné nañu ko. Mhm. parce que dañ leen a laminé largement duma yu metti <laughs> donc tourné nañu page bi di jàll ci leneen <laughs> ndax am na loo xam ne moom dañ ko seetaan Bambey muy ñëw. D'accord. Euh, d'accord. Ñoom daal ils sont très engagés derrière leur leader euh, moo tax buñ ko buñ ko waxee rek ñëpp comme un seul homme euh, combattre lolo. ñoom jàpp nañ ni El Hadji kenn waru ko wax dara euh, parce que li mu liggéey Bambey moo tax def na fi ay exploits yoo xamante selon eux, selon eux, ben politicien defu ko fii moo euh, dañ koy dañ koy combattre léegi El Hadj euh, lan moy ambition euh, vis-à-vis de du département et de la commune. El ni je may wax ak yow mi ngi xol ci ban programme lay mhm. pour appuyer son frère le président. Mhm. du conseil départemental. Mhm. puisque commune dañuy xaar verdi. mom ci loolu la nek El mi ngi xol ban pays la wara a dem. lijjanti ay ambulance ay poste de santé ñëw teg ko ci loxo Babacar Ndiaye parce que loolu Bambey soxla la nii mi may wax ak yow élargi ci programme boobu la nekk donc ci loolu lañ nekk di di ko travailler eh. di ci liggéey ci ci détails yooyu daal ci lañ nekk actuellement d'accord voilà kon daam lan mooy sa dernier mot xanaa di sante, waa bennoo bokk yaakaar yépp eh. ndax gis naa ni ñu wóoloo suma kilifa sunu leader mhm. suñu mag suñu xarit di El Hadj Dia mhm. tous les leaders de la commune voire le département mhm. maa ngi lay sant di la gërëm ci liggéey bi ak ànd bi ñu ànd ak El Hadj nekk ci ginnaawam jàppale ko ba mu am résultat bi dañ leen di sant di leen gërëm di gërëm la population de Bambey les femmes la jeunesse ñun ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci tour El Hadj Dia. Mhm. El Hadj xam nañ jàpp bi ko japp jàppale biñ ko jàppale. Mhm. ak wan biñ ko wonné mom moy borom bambay mom la wa bambay bëgg. Mhm. mu ngi leen di wat félicité kóllëreem. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, euh, c'est très intéressant. Euh, les jeunes de les jeunes de Benno Bokk Yaakaar l'unité qu'ils font derrière derrière derrière El Hadj Dia ñoom daal ñu ko laal.